dotation en moto pomp boole ko carburant ak yeneen ndimbal moom la maire bu Touba Abdou Lahad Ka jàppale association ak yeneen kuréel yi nekk ci gox yi nekk si biir Touba ndox mi jamono ji nangu na ko remise bi fi la woon si maire bu Touba si teewaayu adjoint au maire bi di Serigne Babacar Mbacké ak ay conseils municipaux. li ñu fi dajale woon tay rek mooy ku ne xam na ni dëkk bi mi nga xam ne noonu la suñ boroom def ndox mi mel noonu ci taxawaayu maire ak mboolem ñi mu liggéey bi yëpp ak waa ONAS. ñu jël ay matériel yoo xam ne dañ koy jébbal askan wi association yi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàll googu ni mu ko daan defee waxtu wu nekk su waxtu wu mel nii amee di leen jox ay pompe ay moto pompe ak carburant bi nga xam ne moom lañ koy taalee ak mboole matériel yi nga xam ne moo ci aju yëpp loolu moo ñu fi dajale woon tey ñu ñëw teewal fi maire adjoint au maire Serigne Mourtala ngi nii toog le conseiller Morlo ak euh, Pape Niass conseil de la jeunesse ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp. soob yàlla dañ koy daal di joxe léegi ci turu ñi nga xam ne fa la war a dem boole ko it ak carburant bi oto itam yi nga xam ni ñoo war a wiide wala ñoo xam ne ñoo war a manque yëpp ñu ngi ci terrain bi ñoom itam di def seen liggéey ni nga xam ne noonu lañ ko war a defee. maire daal dafa wax ni lépp loo xam ne luy ndox la bëggatu ko gis ci dëkk bi te incha allahu taxaw na ci taxawaay yu ama am solo ndaw yi nag di yëngu si ay association yu fasantikoo si Touba ñoo fas yéene nag doon ay relais amal liggéey bi ginnaaw bi leen maire bi jàppale wala ay tali li nga xam ne moom la man jënd ay machine pompe di ko jox ndaw ñi ak carburant di leen ci jàppale mi ngi ci ak di ko jox sappoor bu machine yi paane mu di leen ci dimbali moom mi ngi ci. liggéey bi na depuis daaw jéeg jox moto pompe ak ba ren jii nii danoo réparé woon suñu moto commencé woon ci ci liggéey ba yàlla dogal ONAS joxoon nañu ñaari moto pompe andiloon na ko ak ay buret ay bot ñi ngi ci woon doon liggéey tey jii moom itam monsieur le maire mu ñëwaat joxewaat ay machine pompe joxe carburant ñu ngi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm. minute bu ñu woowee ñi xam ne jàpp nañ ne suñu leen woowee su ñuy suñuy suñuy yitte saafaraw ci ñooñu la ñuy jëm muy ñi nga xam ne ñooy représentant état fii ci biir Touba. lu demee ne maire ak ñi nga xam ne ñoom ñooñu ñoom la fi nekkal am na aussi tamit ay bonne volonté yoo xam ne nii certes sax dañuy nëbb seen tur waaye ñi ngi siy jàpp bu baax a baax parce que Maka rek wala Mor mbay rek wala Lat caam kese xëy na mënul dara ndax affaire inondation dafa nekk loo xam ne nii dafa dafa complexe aussi dafa cher. mel na ni nag ndox mi bare na loolu si biir Touba. waaye autorités yi ñoom it seen wàll ñu ngi def ay effort pour accompagner gox yi nekk si biir Touba.